rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu ñu ngi am yëg ak kontante ci toog ak yéen toog ak euh, sa aveniru dëkk sa aveniru réew mooy génération bu ndaw bii di màgg si yàlla tel leen a jox ay responsabilité yal na leen ko yàlla attandoo xam responsabilité li muy tekki ki nee na yàlla mën a too mën a ko dee nattu mee teral ndax ñu bari dafi romb teg la ko ngir nga wone sa ngóor ak sa bëgg-bëgg ci li nga bëgg ci sa peuple ak li nga bëgg ci sa réew yàlla defal leen ko yéen ñëpp euh, senegal ëllëg la yaakaar ëllëg ci ay ndaw lay tabaxoo ndaw yoo xam ne ndaw yu xam lañ waaye du xam rek yem ci mais xam ak ràññee itam dina dimbale nit ngir mu gaaw a àgg fa jëm Sénégal am na ay réalité yoo xam ne dëgg la kenn kenn mënagu ko dindi léegi luy sax dappet amut yàlla dafay emal lii ba fii mu emale ko fii leneen tàmbali waaye luy sax dappet moom amut waaye lii dinaa ko fi jëlee itam amut yàlla mooy def yàlla mooy dindi yàlla nañu yàlla defal ñun senegal lépp loo xam ne dafay dolli sénégalais bu nekk góor jigéen mag naw ñuy yëg ne seen Sénégal a ngi dooleeku mi ngi jëm kanam ci ay doomam ci ay borom xam-xamam ci ay borom alal ci ay ci population Sénégal yëpp muy góor muy jigéen fu mënti nekk kenn ku nekk yàlla na ko yàlla may yëgu yëgu responsabilité ne dañoo war a dooleeku waru ñoo yem fi bon nag waru ñoo dellu gannaaw dañoo war a pousse mu jëm kanam te lu mën nekk la ndax lu ko mën a nekkal mooy li koy amal yëpp yàlla may na leen ko yàlla may na ko génération bu ndaw bii di màgg si yàlla may na leen xam-xam yàlla may na leen cewartaane yàlla may na leen ñu am doole poser question ah parce que feeg àggagoo ci poser question rek dama ko fen mais boo àggee nag di poser question wóor na leen di nga ut réponse pour question boobu ngay ngay ngay ngay ngay poser su ko defee question yi yëpp nag mooy ndax ñun ñii comme ay sénégalais ñun ñii comme ay kaolakois ñoom ñii comme ay jeunes lan lañ mën a dolli ci àddina bi ndax mën nañoo dolli wala mënuñoo dolli suñ mën mënoo dolli naka lañ koy defee ni ñu koy defee mooy nii ngeen def nii yëpp ñëpp ngi ànd mbooloo nekk benn benn sénégalais rek moo fi benn sénégalais rek moo fi nekk ñun ñu fi toog ñii yëpp benn sénégalais rek lañ te kenn ki li bëgg mooy mbooloo mi yëpp moom lañ bëgg mooy dañoo bëgg am ci suñu réew tranquillité dañoo bëgg am jàmm dañoo bëgg am ay dirigeant yu nga xam ne xam nañ fuñ jëm ñu ànd ak seen peuple pousse jëm kanam ndax ay dirigeant sans peuple amut peuple sans dirigeant amut donc bon ñoom ñaar waxtu wu nekk ñooy ànd jamono bu nekk ci seen dimbalante ci lañ mën a dëggalee li ñuy bëgg a dëggalee sama sama taxawaay ba benn xale ñëw ne ma sëñ Mahi war ngaa kontaan de ma ne ko ndax mooy da nga daan wax xale yi xale yi xale yi léegi am nañ président wu xale donc bon sa sa <laughs> wax àgg na fa jëm waaw ah, am nañ président wu xale léegi euh, yàlla nekk xale bu yàlla dëgëral yal na yàlla nekk def ko xale bu yàlla taxaw suñ taxawaay ci suñ réew mooy ku yàlla teg ci kaw réew mi kooku la ñuy ànd ak di dimbalanteeg moom amuñ parti amuñ idéologie pouvoir bi fi nekk nga xam ne moom la yàlla teg ci moom kattanu yaay amee réew mi pouvoir boobu ku nekk war na koo ñaanal boo amee xel ku nekk war nga ko yéene jàmm boo amee xel ku nekk war nga bëgg mu réussir boo amee xel ndax réussir am ak jàmm ak yëpp dafay sotteeku ci ñun rek ñun ñëpp ñoo ko bokk moom donc bon kenn mënut a taxaw mais damay taxaw damay taxawee sama pouvoir lu dul ànd ak moom rek ànd ak moom di ko ñaanal ba bëccëg après di leen di leen yërëm parce que di di di di ñuy jànkoot ci biir réew mi moo gën a tuuti di ñuy jànkoot ci biti ah. parce que euh, Nations Unies ngi fi banque mondiale a ngi fi Amérique a ngi fi France a fi réew ngan yëpp a ngi fi te da ngaa war a jëflanteeg ñoom jëflante boo xam ne dinañ xam ne kii góor gu bëgg a tabax la ñu mën a dimbalanteeg moom donc man kooku yërëm ko ak ñaanal ko moo gën a éloge population bi ñu di ko koy defal di ko di ko di ko ah wax yoo xam ne du noonu di ko waxal yoo xam ne du noonu lii nag taxul ne opposition war na am war na am war na fee nekk parce que dafa war nek nekk ah waaye nag opposition ak pouvoir ak population bi yëpp dañoo war a ànd fu ñu bëgg a dem fu ñu bëgg a yóbbu suñu réew lu ñu bëgg a tabax pour suñu réew bu boobaa ñun ñëpp nañ am réponse ne li ñu bëgg yëpp ci suñ bi réew ànd jàppante dimbalante moo ñu koy may muy ki liggéey ki nekk ci diine comme kër yi wax nga ne da ngeen ñëw seet si benn euh, neru nag yi pépinière la ah seetal ñi fi dëkk ñëpp ñi fi ñi fi ñi fi dëkk ñi ci gën a bëri étranger lañ bàyyi ko ñi moom kër yi ñi ci gën a bëri ay étranger lañ bàyyi ko ñoo fi ñëw ñëw bon nag daka jekk moo gën a doon pépinière bi nga xam ne eh, eh, eh, ñi fi màggee ñëpp ñi fi juddoo ñi fi juddoo fi lañ dëkk waaye ñëpp ci biti lañ bàyyi ko pour ñëw ànd def seen doole tabax Mérina ba Mérina àgg fi mu agsi hmm? te amagul soixante-dix ans adduna bi yëpp xam nañ ko bokk nañ ci parce que góor ñu ànd ak seen doole ak seen dëgër ak seen bëgg-bëgg mën nañoo def miracle ah miracle miracle dootu bàyyi ko asamaan miracle ci ñun lay bàyyi ko ci ñun nit ñi ñoo ko mën a def su ko defee nag ñu kontaan ci seen ànd nii góor jigéen mag ndaw borom xam-xam ak ñu amul xam-xam ñëpp ñu ànd dañoo bëgg a dimbalante pour Sénégal yal nañu yàlla may suñ Sénégal googu ni ko bëggee yëpp yal ñu ko yàlla defal suñ taxawaay ci réew mi yëpp mooy ñu ngi ñaanal suñ autorité yi yal na yàlla doole leen leeri xol yal na yàlla doole leen kattan yal yàlla doole leen bëggeel ci seen biir réew ak seen population te yal na leen yombalal lu ñu yóotu rek yal na leen ko yàlla jox ah ndax li ñu yóotu yëpp bu baax la rek pour ñun ak fu ñu mën nekk bon nag ñi ngi leen di ñaanal yàlla ñi ngi kontaan ci ànd ak yéen ñu ngi leen di wax ne ñu ngi ànd ak yéen ci suñu zahir ak suñu baatin lu ñuy ñaan Sénégal tax ñu di ko ñaan lu ñuy bëgg Sénégal tax ñu bëgg ko ak yéen comme yéen ngeen bëgg Sénégal tax ngeen bëgg ko war ñun ñëpp yal nañu yàlla dimbale liñ bëgg yëpp yal ñu ko yàlla woon ñu gis ko suñu bët yal na ko fi yàlla bàyyi pour suñuy doom ak ñi ñëw ñëpp ci ci suñu ëllëg ñu xam ne fekk nañ bàyyi yoo xam ne fàggu nañ seen kemb kàttan yàlla defal na leen seen kemb kàttan ñun ñoo war a continuer te yal nañu ko yàlla defal ñu ngi leen di gërëm yëpp eh, eh, bay mbay ak eh, doomu aji makka bi ah ah Babacar ak ak ak yéen ñëpp itam ak yéen ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla amee ndoo leen yàlla nañu yàlla dool yàlla amee moo mooy maye yàlla mayal boppam yàlla yëkkati yàlla nañu yëkkati yàlla yaatal yàlla ñu yaatalal lu fi nekk luy barkeel doomu adama rek ci réew mu mënti nekk yan nañu ko yàlla may yan na may Sénégal te Sénégal war nañoo nangu ñun ñëpp ne Sénégal réew mu barke la ku nekk nag am nga sa sa code booy xoolee ku nekk am nga sa idéologie booy xoolee ah sa sa sa code sa idéologie mun na la atteloo comme ni nga bëggee yow mais Sénégal mooy ne réew mu kawe la réew mu màgg la parce que li xew mooy Sénégal réew mu ndaw la ci Afrique par rapport ak kon Nigéria euh, amul doole waaye Sénégal ci côté religion mu jiite Afrique Afrique yëpp ci côté diine Sénégal moo leen jiite xew-xew bu diine am ci Afrique balaa africain kontaan nañ na ñëw defee si ko Sénégal ndax war na leen yàlla dina ko nangu bon nag Sénégal ci réalité am réew mu mag la waaye ñi fi kenn ku nekk sa idéologie bopp nii laa gisee nii laa xamee c'est tant pis ak moom c'est droit la waaw ah, kenn du la ci wax dara waaye nag gën a la gën a nag se jàng pour Sénégal lan la ñu mën ko dimbala ñu mën ci dimbalante waxante aayut saagawante aayut xastante aayut ah Amérique bala moo laata àgg fi yéen ñëpp ay jàngkat ngeen xam ngeen ne moom emutoon ci saaga xaste mais la daan xeexee ku ne xam ne sud ak ah, bala ñoo agsi fii ñu agsi lu nekk xew na fa ci rayante waaye fi nekk àgg nañ fañ jëmoon tamit buñ buñ buñ wax rek xas saaga te jëmuñ fenn dafa am fuñ jëm yal nañ fa àgg ñun ñëpp yal nañu yàlla dimbale dimbale Sénégal dimbale leen kontaan nañ ci toog ak yéen bu gënoon a yaatu dinañ leen ganale rayal leen toggal leen waaye ah ba beneen yoon incha allah jërëjëf